asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 23 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko waaye moo xam suñu làmb la moo xam record la fa nga xam ne moo di Equivox fépp foo xam ne daal tey ab yëglikaay nga wala ngay wax ci làmb daal bu bëggee dégg dëgg moom wenn xët wi wenn la wala benn kàddu bi benn la li olof Njaay di wax rek ku xamatul fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon te itam nag olof a ko wax ku bëgg a dee wequ mu mel ni ki fi mu nekk ni mbër ya ak waa lamb ja ci boppam foofa la ñu toll maanaam dañoo muñ ba seen muñukaay jeex maanaam dañoo sës moo tax nag démb ñu wax fa ñu waxe nag moo doon pikin woote woon wax ja moo di Boy Niang bu dégool moom moo woote woon ab conférence de presse mbër ya wuyu si ko donte am na ñu ñëw daal waaye soo bëggee dégg dëgg Eumeu seen mu nga fa woon Papa Sow mu nga fa woon Gora Sock Franc Tafa mbër ñoom soq bàyyi ma njoon mu caaro yi mbër yëpp parce que ñëwoon nañu wala bokk mbër yu baree bare ak ay manaatse ay li nga xam ne nii ñoom ñoo di sax promoteur ak ñoom tamit ñu nga foon maanaam daal démb parce que ñu baree bari fekke nañ daje booba nga xam ne mu nga doon amee ca Pikine la ñu wax nag moom benn wax dong la maanaam daal président ma Macky saal mu jëloon décret tëj làmb ji moom la gars yi ne ko day président yaa tëjoon làmb ji li ñu bëgg nag mooy nga ubbil ñu ko ngir ñu bëre c'est tey itam mu nga foon ca ndaje mooma bu bëggee dégg-dëgg daal gars yi moom wax ba benn la Papa Sow moom la mu wax ne nañ ñu bàyyi ñu dund li nga xam ne nii moo di sunu passion moom daal boobu gis-gis la am Eumeu Sène tamit la mu gis daal jàpp na ne nañu seet yan formule la ñu war a mën a jël ngir combat yi mën a reprendre maanaam ñaal ñu mën a commencé waat sëgg di bëre Siteu moom waxul sax làmb ja moom da koo dépassé Siteu moom wax na ba parce que jooy na ne na état bi ci boppam wala boog ñoom ñu yore réew mi ñoo war a gestu askan wi ndax ñi sonn bëri nañu torop torop trop ne na sax daa dépassé mbirum làmb Siteu ñëw na ca suuf si nga xam ne jàpp na ne ñu ngi koy jox ay étranger ñu di ko exploité na mu leen neexe te benn doomu sénégalais du ca gis sa bopp fekkee am na ku cay gis boppam ka ñuy jël lay doon teg ko ca kaw mu jël lu ma téeméeri sénégalais ñu leen di fay ay xaalis yoo xam ne daal soo bëggee dégg-dëgg maanaam añ sax doo ko ca mën a am si tane nga xool sa way jur mu soxla junni mu tëlal lool ne na lii waxuma la dugg gaal waaye romb na sax jar dugg gaal kon jàpp na ne président Macky Sall si ta daal lam ko xamal déem ne na ko yow la nu fal yow la nu jiital li nu bëgg nag mooy nga gestunu fi mu nekk daal si ta moom boo bëggee dégg-dëgg loolu la wax Malick Thiandoum moom nëbbu ko la mu leen xamal daal nee na li ak lu mën a xew moom bëree dafa war a am ci nii wala ci naa te jàpp na ne moom sax mbir ya loola ma war a am bëre la war a def booy ñangi tamit ma woote woon daje ba ba tey mu ngi ci xëtu yëglekaay bi moom nag la mu wax daal nee li am ba des daal lu mat fukki weer yoo xam ne ñoom ñooy génne seen alal di ko ca joxe parce booy ñang jàpp na ne promoteurs yooyu nga xam ne ñoom ñooy joxe xaalis ba soo bëggee dégg-dëgg maanaam ñoom fi mu nii kenn gënu leen a ndax ñoom ñu jël seen xaalis joxe ko ñoom tamit toog di xaar xamuñu fu ñu jëm Boy Niang dafa jàpp ne kon fi nekk nii il est l'heure ñu xolaat mbir ya daal di koy teg ci aw yoon ngir mbir ya mën a jëm fa nga xam ne ni foofu la ñu yaakaar ne su fa demee daal mbir ya dana jaar ci aw yoon mel ni ki daal démb moom soo bëggee dégg dëgg moom arène ba moom yëngutu ne moo de tax yëg likaay ba ñëw na de maanaam daal xam ne nañu daal li am ba des moom gaaya mu nekk nii day taxaw nañu temm xam ne mu di ci lu mel no la ñu fa ya moom suufle nañu la nga xam ne moo de feew récréation ba maanaam dañoo sës sonn nañu tàyyi nañu damm nañu moo tax nag demb wax nañu ji jiite réew mi xamal nañ leen ne ñoom ci réew mi la ñu bokk te nag deesu leen bàyyi ginnaaw parce que nag ay doomi sénégalais lañ yoo xam ne nii lépp lu réew mi soxla dañ cay taxaw rawatina politiciens yi saa yu ñu leen soxla dañuy ñëw moo tax père Max Mbargane jàpp na day kon yaakaar naa nag loolu ñuy wax ci lamb ji li ñu war def mooy ubbi ko ngir gaaya mën a bëre yëglikaay yi tey ñoom ñépp ku ci ne foofa nga xëy awale leneen loo xam ne ni nekkoon na fi coow fan yi ci diggante ma seen ak Lac de Guiers numéro 2 loo xam ne la daal ay wax la woon jàppal booy ñang ba tey wax na ca la mu xam ne daal jàpp na ne loolu moom du garaaw maanaam daal daal jàpp ne loolu moom ba tey bataille psychologique daal la ko tudde keneen koo xam ne nii moom bëgg naa am combat ba def bataille psychologique moo di Double Less numéro 2 mu école de Balla Gaye mu géejawaay lees daal nga mu xëy sampal ndën ñenn la ama neex bu tëngéej Forza bu Fass Yékini Junior wala Mayek Ñang nees wala boog lees daal jàpp na ne ñeent ñi moom ku ci ñëw ma defante ak yow ba mu saf-saf maanaam daal ñooñ fi nekk nii soo bëggee dégg-dëgg ñoo ko teree nelaw may sa njaay tamit ak gamam bangam ba nga xam ne ca la toogoon ca mbuur ba tey foofa tamit buñ fa dellusiwaatee maanaam wax ja daal mu nga fa yëglikaay bi tamit ñëw na ci bu ñu demee fa nga xam ne tamit moom moo di ca Equivox daal loola moo fa nekk la amoon démb Pikine ña nga xam ne nii ñoo doon mbooloo ma nanu bare woon presse ba ñépp ñëw mel ni ki fi mu nekk nii gars ya dañoo sonn xulle te nag fi mu nekk nii heure ba daa jot ndax boo bëggee dégg-dëgg mois de mars la ñu gënoon sëgg ci réew mi di bëre te boobu ba tey mbër yaa ngi toog amateurs yi toog promoteurs yi toog kon nag état du Sénégal gars yi wax nañu ak yéen defe naa fi mu nekk nii rek yéen yorul seen cëggal guy te defe naa wax ji ñu leen wax démb xanaa nag du tàbbi ci noppi ku tëx faw ngeen déglu ñi wax ak ñoom ndax dañoo bokk ci mbir yi te ku bokk ci gétt gi xulle faw mu naan ci meew mi du mën a ñàkk wala boog mu joggi ci neefare yi parce que loolu mooy le am. mbokk yi nuyuwaat naa leen ziaraat leen ah di leen jégalu nag par rapport ak démb li taxoon amu ngeen seen revue Ah, Equivox yéen téléspectateurs yëpp maa ngi leen di jéegul parce que li ko waraloon ah, loo xam ne heure maanaam ba ñu joxe woon ak heure ba xaw a am tuuti différence maanaam mu dem ba benn moment ne yàgg nañ ci yàggaay boo xam ne mënu ñëwoon leen koo indil loolu moo tax démb amu ngeen ko mais ñu ngi ciy jéeglu bu baax a euh, yi moom xam nga saa su ne gars yi dañ ma koy laaj kon moo tax daal démb loolu moo tax gisu ngeen ko ñuy jéeglu bu baax a baax wax ji nag benn wax la moo doon démb am ca Pikine Boy boo xam ne woote na yëglikaay yi ñëw nañ ci sunu làmb Equivox euh, record ku nekk li TV ñëpp Leewtoo maanaam képp kuy wax ci lamb demb ñëw nga fafu arène bi maanaam ñëm ñëpp a fa ne ay Bawol TV Kewel Dakaractu Sénégo bu ma limee dinaa juum Sénégal démb presse bépp a fa newoon en bokk pour mu leer ci lu gàtt ñëpp nga fa li ko waral nag benn wax la maanaam lamb ji mu war a ubbi léegi nag fan yëpp gis nañ mbëri di génn di wax Gris 2 génn na wax ci Equivox c'est te Balla Gaye Bombardier ñoom ñëpp ku ne wax na waaye nag wax ja xëy na dafa desee des dafa desee dal parce que li tax mooy ku ci ne nga toog benn place nga waxe waaye démb nag la booy ñaa def ca Pekin defe naa loolu mooy acte boo xam ne ku ko gis nag war nga xam ne ñii day ah bëgg nañu dellu siwaat ci seen làmb ji bëri loolu nag yëglikaay yi démb ñoom ñëpp moo tax ñu ñëw ci parce que booy ñaa moo woote wax naa de presse invité mbokku mbërëm yëpp ñoom ñëpp parce que ci li ñu am ci ay écho amut ci ñoom ku mu woowul ci ñu baree baree baree bari ba doonte nag am na ñoo xam ne ñëwuñu parce que doon nañ fa xaar présence le roi des arènes Modou Lô gisuñu ko fa le lion de Guédiawaye Balla Gaye ñu ko fa doon xaar gisuñu ko fa Lac de Guiers 2 la gisuñu ko fa Gris Bordeaux le troisième bu ndaw itam dëkk Pikine gisuñu ko fa te ñoo ñëpp pour man xaw ma nag leen empêche parce que ku ne nit moom mënoo net sa géntug morom wala nga def lu la wala nga wax loo xamul yaa ngi dégg kon ñoom ñoo xam la tax ñëwuñu waaye daal jàpp na ñu ci suñu gis-gis waroon na ñoo mën a ñëw parce que loolu lépp pour man ñoom la parce que Boy Niang pour man la mu def démb defu ko pour boppam mais pour ñoom la même que mu seqal làmb sax pour man maroon na mën a ñëw muy tafaatin parce que gis nañ si te démb ñëw Papa Sow ñëw te ñoom ñaar ku ne xam ne adversaire lañu Pape Abdou tëgg seen làmb ñu war a bëri te démb ñoo bokk benn taabal bokk benn micro bu ñu waxee bokk benn idée bu ñuy xeex idée bi mooy lan la kee wax démb rek càndum moo ci nekk xulli fi mu nekk nii waxi combat wala diw ak diw ay bëri pour man du ko du wax ji wax ji xam nga lan la kañ la ñuy bëree bu mu war a nekk coow li fi mu nekk nii te defe naa ne ñoom ñëpp fi mu nekk nii war nañoo conscient ci lu mel ni ki noonu Gris Bordeaux nag defe naa ne a xew donte initié que moom mooy président des lutteurs en activité waaye gisuñu ko fa xëy nag am na empêchement waaye ne yéen mbër yi leen di boole su combat taxawee man ngeen wax seen communication defante waxante dinaa la duma dinaa la daan maa la mën maa la pu doole bu làmb ja jotee ngeen duy arène ya ba mu fees ngeen bëre que le meilleur waaye nag am na foo xam ne su fa mbiree yeggee da a war a ànd bokk nday bokk baay ndax li tax loolu mooy bi Covid bi bi ñu déclaré Covid bi Sénégal yépp di ci dugal seen alal yéen mbëri desu ngeen ci ginnaaw kon yéen ci réew mi ngeen bokk di ay bons citoyens di dimbali nit ñi yaa ngi dégg promoteurs yi di tëgg seen ay combat lañ leen di jox ngeen di ko bokk ak askan wi kon defe naa ne ba Covid ba ñëwee defe naa kera seen ministre des sports ngeen àndal muy monsieur Matar la santé. Yaxya Jóob nee nga fa woon Giree nga fa woon Modou Lo nga fa woon Boy ñaa gis nañ ko fa ak ñoom rëg-rëg ngeen yëkkate la ngeen am muy doomu am doole dugal ko ci ndimbal li nga xam ne moom lañ état bi soxla woon jamono jooju kon defe naa yéen du ngeen n'importe quelle personne ci réew mi kon defe naa nag combat bi itam yéen ñëpp ci war a bokk benn bët benn yoon bu ngeen ci aw xeex ngir lii mën a dañ loolu mooy wax ji xeex nag waxuñu dóorante wala wax ju ñaaw mais maanaam wax li nga war a wax teg ko ci aw yoon ki nga ko war a waxal mën koo dégg su ko defee mbir yi mën a jaar fi nga xam ne moom lañ ko soxlaa parce que tamit ci réew mi la ñu bokk te ay citoyen la ñu promoteurs yi tamit defe naa kenn demul ñu des parce que ñoom luy metti ci ñoom la gën a metti ndax ñoom ñi nga xam ne ay bailleur la ñu jël seen ay xaalis xam dañoo leb ca banque ba wala dañoo def ay prêt bancaire wala nangam sangam jël seen ay dugal ko joxe ko defe naa ñu tamit wax dëgg yàlla métti na trop ci ñoom kon defe naa man dama jàpp ne leneen état jox sax la mu leen épaulé pour man dafa ndaw man 27 millions man xeeb naa ko trop ci promoteurs yi nga xam ne ay millions la ñuy investir ci ci làmb ji ndax tey ku mel ni Babacar mi promoteur u làmb kay fay ndax waa Vox Arena ku ne xam ne ne ay ay ay ay ay donte groupe de presse la waaye ci biir groupe de presse boobu mu doon dañ ci génne benn euh, kii boo xam ne nii benn euh, bànqaas boo xam ne nii moom mooy tëgg làmb muy Vox Arena nga xool combat yi taxawal du combat yu ndaw ay Mama Lamine Garga 2 ay Tyson 2 franc yaa ngi de ak yeneen combat espoir yoo xam ne ñu ngi ci biir te ñooñu tey kon defe naa ak yeneen ak ñeneen yaa ngi dégg gis nañ fu mel ni Leewtoo taxawal Tafatine Boy Niang loolu du combat bu ndaw yeneen promoteurs yi ku nekk taxawal ñoom Diey Sène ñoom Abdou Fall ñoom it ku ne taxaw nga ay combat yu mag kon defe naa état bi war na gëstuwaat ñooñu jox leen seen gëdd te li ma waxoon démb laay waxaat damay continuer di ko wax promoteurs yi wala waa làmb ci boppam dañoo bokk ci ñuy développer réew mi parce que koo ci dem ci ginnaawam mu ngay fay ay nit di dundal ay nit kon defe naa ñu mel noonu su lu mel ni ñëwee ci réew ñu dimbali ñoom ci la ñu a bu jëkk a bokk ñu ñuy épaulé noonu parce que mais na ko mbër ya defee noonu la ko promoteur euh, bi dañoo kër seen alal yóbbu ko ko la nga xam ne nii moom mooy état du Sénégal que loolu la ñu wax état bi nag suñ ko waxee mooy population bi am na nag kuñ teg ci réew ca kaw muy le chef suprême des armées muy de la république monsieur Macky Sall kon defe naa itam lépp ci yow lay dellusiwaat rek nga gestu saw askan bàyyi xel liñ lay wax ndax itam nag kenn benn sénégalais bu xëy ñaxtu rek wala naa jéem a xam moom la muy ñaxtu lan la parce que sëpp la la ko bënd nga ca biir yaa ngi dégg seta nag ñu man de comprendre naa ko ndax la muy wax dama koo xam ndax man banlieue sama kër papa nga fa ma dëkk fa xam fa samay mbokk ne fa la ñuy dund xam nañ ko pour banlieue bi dafa metti te nu mu méttee ci banlieue bi noonu la méttee sax ci àll bi dangay ngay xëy des fois mu dëgër loolu am na mu demee kon waxatuñ sax la mais Sénégal ci boppam moo am benn problème de euh, problème mu euh, waaw boo xam ne ni liggéey yooyu dafa jar a xoolaat yi muy wax dafa parce que tamit mënuñu jël ay terre ay suuf jox yoo xam ne dañ koy exploité yóbbu en Europe wala Amérique di ko di fay suñu doom yi ay journée mille cinq cent wala nangam te des fois sax doo li mooy loolu des fois bala nga cee jot mooy loolu te amuñu fenn fu ñu ko jooyee kon mbir yi nañ ko xalaat bu baax a baax loolu moo fi ñëwoon tey ci yëgle kaay di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di jéggulu ñëpp di balu suñ soppe yëpp ak waaye tey nag xule ah black and laa def mooy noir blanc ah ki ma ki fi jaar nag du kenn ku dul Dame VIP borom marché Colobane sama rakk jooju maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm moo ma woo kere ma ñëw mu solal ma tey gis nga li ma solal ci simis blanc ak jean noir ak dàll noir blanc moom la ma defal kenn du daam parce que daam faw ma joxe numéro gaa yi woo ko parce que nag xulle dama la fa yóbbu parce que la muy solalaate waaw gaa yi jël leen daam mu ngi nii dama leen koy jox 76 ngay def 253 39 03 76 253 39 03 daam bu xarañ loo daam bu génération xarañ daam bu marché Colobane di ci profité du nuyu supporteru Modou Lo yeeg supporteru Ama yépp di nuyu ñëpp daal di ñaan jàmm suma soppee yi waaye Cheikh Bass kenn du yow waaye xulle yàlla na nga wér yow tamit yàlla na la yàlla may soxna su baax kontaan ci yow waaye nag may diggaa yi daje lu yàggul ci mois de janvier di ngeen gis yeneen affaire yu bees teq ak kan Myriam Sow ak Babacar beneen façon revue bu gën a saf bi bu gën a neex sama pël bu rafet boobu macha allah yàlla na ko yàlla defal jàmm di ko nuy du Salimata